bokk yi ñu dellu nuy leen lu bari amati mbégte lool di ànd ak yéen ci seen émission le débat du jour moom débat du jour xam ngeen ne dafay dugg ci programme yu yees yi ñuy woowee le p li bees ci débat du jour nag moo di ne émission la boo xam ne léegi mën ngeen ko am en direct ci Walfadjri TV waaye tamit mën ngeen ci bokk su ngeen ko bëggee ni ngeen def lu yomb la. 88 628 99 99 teg ci 114 di ngeen mën a dugg ci émission wax seen xalaat waaye tamit wala ngeen fekk ñu ci xale yu bees yi ñuy woowee réseaux sociaux bokk na ci Facebook ak Twitter tey nag li ñu tànn di waxtaane mooy lekkoolu Sénégal lekkoolu Sénégal mi nga xam ne ba yàgg ba léegi dafa mel ne am màgget mu feebar mu naqaree faj lool li ko waral mooy ay jàngalekat yoo xam ne bu yàgg ba léegi ñu ngi ci ay grève ba tax ñu bari ragal ne bu ñu deful ndànk lii di année scolaire bi dana naax saay monte day ca wàll ga état wu Sénégal wax ne lépp lu mu diggante woon ak enseignants yi def na ko wala bokk la ci ëpp def na ko lan moo tax kon grève yi di continuer ba tey mbokk yi laaj bi ci lañ nar indi ay tontu tey ki ci nar indi tontu moom ñu ngi koy wax ba Demba Diallo dem ba Diallo moom mooy directeur général fonction publique sëñ bi Diallo maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay nuyu. ngay jàkkaarloo ci waxtaan wi ak euh, Mamadou Lamine Diante Mamadou Lamine Diante ku ko tudd tudd syndicat ku ko tudd tudd jàngalekat ndax moom moo jiite grand cadre bi nga xam ne ay syndicat wu jàngalekat yu bëri ci lañ ànd Mamadou Lamine Diante maa lay nuyu di la dalal ngi lay nuyu sëñ Moustapha. di nuyu bu baax a baax directeur général de la fonction publique. nga xam ne suñu collaborateur la. di liggéey ak moom. di am ci moom euh, respect bu bëri ci taxawaayam mm-hmm. di nuyu téléspectatrice ak téléspectateur yu euh, Walfadjri ak euh, di kontaan lool ci d'accord yu bees yi nga xam ne moo nekk fi Walfadjri di ñaan yàlla mu jëm kanam amiin amiin euh, di kontaan ci waxtaan wi également mm-hmm. nee na directeur général ginnaaw bu ma la nuyu waatee ci yow la ñuy commencé suñu waxtaan ndax ci këru yëglekaay bi ñuy woowee journal Le Soleil tey ci suba ci altine ji yow yaa ci nekk li nga ci xamle moo di ne euh, gouvernement bi ay tontu yu am solo indi na ko ci lépp li nga xam ne enseignants yi laajoon nañ ko nga teg ci tamit que ne joxe ngeen li ñuy ay échéance maanaam ay date yoo xam ne bu ñu ci yeggee di ngeen def li ngeen digle ak ñoom laaj bi kay mooy lu tax kon ba léegi grève bi di wéy. waaw laaj boobu xam naa ne hmm. <coughs> di ko laaj jante. Hmm. directeur général de la fonction publique li ma fi indi. man hmm. ma man maay président comité de suivi des accords. dëgg la accords yi ñu signé ak état bi. accords ak état bi. man maay nekk ci ginnaaw di soññ ministre yi. pour que ñu réaliser kenn ku ne wàll bi nga amee. dëgg euh, boo gisee boobu ba léegi. àdduwuma ci c'est parce que euh, ñu ngi def ay réunion yu bare. ak syndicats yi jamono yii ñu toll nii sax. am na médiateurs yu si dugg lu mel ni député yi. Mmh. Euh, mën naa ci citer professeur Iba Der Thiam daanaka député assemblée nationale lu ëpp juróom-ñett juróom-ñaari député mhm. dugg nañ ci médiateur médiation conseil économique sociale et environnemental ak ñeneen ñoo xam ne lim leen fii dina kii mhm. donc ñoo ñëpp dugg nañ ci kenn ku ne déglu nga euh, syndicat yi waaw après nga oo administration ministre yi mhm. déglu leen donc ñoom def nañu seeni navette déglu nañu syndicat yi déglu ñu ñun ñu jox leen seen tontu tontu yu ñu indi. ci wàllu revendication yi. donc mën naa wax ne tey ji tey mm-hmm. seen mboolem seen revendication yi nga xam ne moom la ñu tënkoon ci protocole d'accord. Mm-hmm. indi ngeen ci euh, tontu 17 février bi. Mm-hmm. indi nañ ci ay tont yu leer safara nañ ko sax laa mën a wax. ba mu des benn boo xam ne. muy wàllu ndàmpaay yi. ko ajandi ba ci muy indemnité dinañ dugg ci léegi ci waxtaan dañ ko ajandi ba si kanam. d'accord alors euh, laaj bi euh, moom laa laaj DG sax ne daanaka yow laa ko war la ko lan moo tax <coughs> seen jeex kon. jërëjëf euh, Moustapha boo gisee grève bi ñu nekk ci ba léegi dañoo damay fàttali rek ne bi 2012 ñëwee Macky Sall bi lu muy laata ñëw ci ci réew mi. Mhm. dafa fekkoon école bi nekkoon ci ay jafe-jafe yu tar mu lancé appel ne dafay ñaan jàngalekat ak seen kuréel yi ñu ajandi lépp lu ñuy def mhm. ba bu yàlla defee mu indi ay saafara ci mbir mi mhm. ñu daal di ko déglu ci loolu mhm. gouvernement bi mu nommé ko premier gouvernement bi ñu waxtaan ak ñoom ñu ñoom lépp lu ñu déggoo ak nguur gi fi jóge taxoon nañu tey jii pour respecté ko ci kaw li ñuy tuddee principe de continuité de l' ñu nekk ak ñoom ci ay accords yoo xam ne signé woon nañ ko ba pare daal di ko renégocier ba am benn plateforme minimal en quinze points en onze points autant pour moi. Mhm. ñu signé protocole d' accord ci biir protocole d' accord bi. am na vingt deux points yoo xam ne yooyu ay anciens accords la. Mhm. ñu dugal ko ci moo tax léegi ñuy naan trente trois points d' accord. Wow. mais lu ñu boole ñun ak nguur gi. Mhm. dix points et onze points la woon dix si nekk ay accords. ba mu desee ñu ne woon ay accords réalistes et réalisables bi am ay échéancier bu ci nekk. wax nañ kañ lañ koy. def dernier dele bi moo nekkoon décembre 2014 ci dix points d'accord yëpp mhm. bu ñu toogee bi décembre jeex mhm. te benn poñ amul boo xam ne jëmal nañ ko ba jàngalekat yi mun koo saafara benn amul benn boo xam ne jëmmal nañ ko mhm. ba jàngalekat yi mun koo mun koo e, jëriñoo mën cee jàpp daal mën cee jëriñoo amul ñu daal di jóg nag laaj leen pour ñu jëmmal loo xam ne ñoom ñoo ne woon mun nañ ko jëmmal ba tax na ñoom ci seen bopp boo leen dégloo ñuy wax dañuy naan nguur gi def na ay jéego waxuñu nguur gi respecté na protocole d' euh, accord bii. directeur la fonction publique mu ngi fi. bu amee accord boo xam ne ñoom réalisé nañ ko ba suba. jàngalekat mu muñ cee jàpp. bu ko waxee xëy na bu subaa jàngalekat yi est-ce que ce euh, que doonul juyoo kon ci diggante syndicat yi bu ñu xamee ne am na syndicat yoo xam ne nee nañ dina jàngale ji lan lan moo indil wutale bi. waa xam nga day jafe ci man trop ma tontu ci place ñeneen. Mhm. mais ñi ma li ma mun a xam wax mooy. Mhm. jàngalekat yi xam nañu ñan ñoo am plan mhm. ñan ñoo amul plan d'action. d'accord alors DG est-ce que mën nga ñu dikkal kon ci revendication yi nga xam ne enseignants yi tegoon nañ ko ci table bi signé ko ak gouvernement bi yow nga ne yaa ko doon topp yaa ko doon superviser yaa doon jiite comité de suivi est-ce que mën nga ñu limal ak yoo xam ne leer na ne tey indi ngeen ci ay réponses mën nañ ci téye ni ko jant waxee tey. xam nga protocole d'accord bi. waaw 33 point la. 34e e bi mooy comité de suivi bi ma jiite. bon. 33 points yi nee na nee na plateforme générale bi 22 points la réglé na. Mhm. n'est-ce pas parce que yooyu <laughs> parce que yooyu amul benn jafe-jafe. ay accord la yoo xam ne pour nga réaliser ko amul problème. mais damay fàttali ci loolu ne. Mhm. am na ci benn boo xam ne lu am solo la ñëw. mooy bees de la fiscalité sur les salaires. waaw 40 milliards de côté budget état. boobu defe naa mais boobu weesu la ñoo ci jëriñu sax. pro euh, mhm. plateforme boobu c'est réglé. plateforme minimale en 11 points bii muy wax bi ci jiitu. mooy validation xam nga neen na la léegi gi avant alternance bi am grève bi metti woon na lool ba bi président Macky Sall ñëwee ñaan leen mais loolu xam nga lan la woon mm-hmm. validation bi la woon parce que validation bi à l'époque dañ ko xayma woon 33 milliards gouvernement bi ni li ay la yëwen mënuma ko enseignants yi jàpp ci mu nekk question bu difficile ba ni yàlla def <clears throat> makisal ñëw mm-hmm. dégg nga ñu tegaat validation bi ci table bi alors ñun bu nu xoolee validation bi xam ne injustice mi ngi ci parce que validation dégg nga may nañ ko jàngalekat yi mais bi ñu leen mayee bi ñu ko mayee jàngalekat yi dañoo seetlu ne pour ñi nga xam ne ñoom la fonctionnaire loi 61 33 daf ko xawoon a bañ mu nekk écueil bu bett bett ñëpp fekk na nag comme mayee nañ ko agent non fonctionnaire yi ñoom ñi ngi doon valider fonctionnaire yi ñu tënk leen ba tax na kii bu ngeen bokkee promotion day avancer di monter grade yow euh, loi loi 61 33 bloqué la ci sa carrière ñun ñu ne lii vraiment c'est injuste lii buñ ko tegee lu mu metti metti c'est war nañ ko saafara hmm. alors bi ko expliqué ministre expliqué ko président mu ne kii injuste la boo xam ne il faut que ma régler ko ak lu mu mun a coûter hmm. looloo tax validation bi man président comité de suivi sama doole yëpp laa ci def est-ce que euh, te validation boobu hmm. ñun ak ñoom ñoo ko doon depuis depuis bi ñu signé protocole ba léegi ñu ngi liggéey validé xam nga xam dama leen am na accord yoo xam ne pour nga matérialiser ko dafa jafe dafa jafe parce que validation mhm. da defar d'abord projet de loi pour mu mun ñu euh, loi 61 33 pour nga modifier ko a accepter validation pour fonctionnaires yi mhm. projet de loi boobu rek ñun ak syndicats yi liggéey nañ ci lu ëpp 10 séances bon ñu pare ci loolu ñu ne su loi bi suñ ko voté il faut nga toftal ci décret d'application. suñ ko deful léegi mën naa am buñ ko euh, buñ bu ñu demee ba wote loi bi loolu jël temps. ñu daal di profiter dugalaali décret d'application bi ñu liggéey ko ñu ak syndicat yi donc wàllu juridique bi féetee boor. parce que ñee dañ doon wax ne 33 milliards la mënuñu ko. waaw ñu ne léegi il faut ñu def calcul bu juste boo xam ne bi moom peut-être ce sera soutenable ñu liggéey ci ak ñoom ci périmètre bi. mu nekk ay séance de travail yu dul jeex ñu jóge fa def ay tournée ci région yi pour renseigner date d'entrée date de sortie loolu liggéey boobu xam nga xam nga kañ la jeex décembre décembre décembre 2014 la jeex bi mu jeexee ñu jël kayit yëpp jéggal ministre des finances ne léegi am nga lépp toutes les données pour calculer incidence validation bi mhm. mu jël un mois c'est avec ses informaticiens mu tontu euh, mu tontu fin décembre mhm. ministre de fonction nañu validation bi incidence financière bi nangam la dégg nga donc loolu liggéey boobu ñun ak syndicats yi ñoo ko def donc xam nga ne pratiquement un an ñu ñu ngi liggéey processus validation bi léegi validation bi euh, projet de loi bi suivre ngeen ko ça a été adopté en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale mm-hmm. donc, président moo ko sàkk woon député yi voté ko déggee kenn mën leen reprocher li tubaab di wax manque de volonté lenteur ñàkk am ci boobu amul lenteur parce que expliquer naa la mën naa la woon calendrier réunion yeeg yëpp xam nga projet de loi bi euh, promulgué nañ ko mhm. léegi bu ñu promulgué projet de loi bi ana lan moo des décret bi préparé woon nañ ko bu yàgg ba conseil des supérieurs de la euh, conseil supérieur la fonction publique adopté na ko donc texte prêt à signer mhm. moo fi nekk am na ñoo xam ne ñu ne woy léegi c'est pas effectif parce que mën a goo mën aguñu déposer ay dossier mais c'est vrai parce que projet de loi mhm. ak projet de décret munoo ko adopté en même en même temps parce que décret bi. Hmm. balaa nga koy signe hmm. il faut nga viser loi bi. d'accord donc foog ñu promulguer loi bi. ba pare lan moo tax kon li li li ñii yëpp indi état bi indi ko ci ay tontu te directeur général ñëwaat ci léegi. mu mel ne yéen enseignants yi da ngeen ko déggul tontu yi moo leen doyul wala yéen dëgër bopp su ma ko su ko sañee wax. waaw xam nga en fait <clears throat> euh, il faut rendre à César ce moom liggéey na ci. processus validation nangul ko mun naa sax wax ne novembre fekk na moom mu pare ci liggéey boobu jëbbal ko ministre am mhm. kooku parafe ko ñu yóbbu ko ci secrétariat général du gouvernement novembre ñu tase ak ñoom début décembre bi ñuy waxee liggéey boobu yëpp mhm. ñu ne kon nañu gaawantu voté loi bi ñu euh, euh, promulgué ko ñu signé décret bi bu ko defee balaa décembre bi ñuy xalaat di déposer préavis de grève au moins jàngalkat dañuy xam ne léegi ku ci concerné woon par la validation mun nga constituer sa dossier nga déposer mais xamul li ñuy wax nii yëpp moom la tubaab di tuddee mise en œuvre application bi amagul parce que kenn mënul ci constituer sa dossier di déposer te li gën a tax suñu xel ñaaw ci mbir moomu te mooy poñ boo xam ne ci lañ gën a sori moom mooy que ni ñoom tey jii daanaka dañu mel ni kuy dellu ginnaaw parce que dañoo bëgg a euh, lënkale déposer dossier pour am euh, ancienneté civile ak calcul rappel boo xam ne war nañ ko fay ak yenn anam lañ koy fay loolu bu ñu ko defee rek day indiwaat ay jafe-jafe te bëri na ay wax yu ñu dégg surtout wax bu jógee ci ministre la fonction de l'économie de des yooyu buñ ko leeralul rek teg ci suuf xam ne ñun lu ñu soxal du ñu nekk fii naan da ngeen di fay léegi rappel bi wala da ngeen di fay rappel bi suba li pare boobu na boobu commencé moom mooy validation bi léegi na lu jëm ci rappel bi comme am na comité ad boo xam ne moom moo koy superviser bu ñu demee bu nguur gi ne ñun at bu dee nangam la mën a fay ñu ñu xool ñaata lay coûter bu ko defee dinañ mën a déggoo parce que même suñu ndàmpaay yi ñu amoon di booy gëstu bi. du ci benn at lañ ko fay. est-ce que euh, finalement mënuñu wax ne crise de confiance moo am parce que bu ma déggee DG mu wax li muy wax daanaka lu leer la mais su ma la dégloo day mel ne euh, dégg ngeen ko mais wóoluwu leen est de conscience. waaw xam nga xam nga olof yi ñooy naan. Mhm. ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw. te euh, loolu en réalité. Mhm. lu am la. buñ ko waxee aussi dañuy wax lu ñaar lu sinon même bu dee ay médiateurs ñëw nañu. ñu ne jox nañ leen ay échéances. Mhm. bi léegi ñu am lu ñu dute c'est parce que ci ginnaaw lu luñ fa gisoon. d'accord moo tax nee naa la. Mhm. échéancier bu ñu jox xanaa ay échéancier yu bees la mais échéancier yu nekkoon ci protocole d'accord am benn bu ñu ci respecté. d'accord alors DG dinañu ñëw sànq ndax mu ngi wax ci suba ci journal Soleil que ni am na yu ngeen satisfaire mais am na point yu nekk en jël suñu mbokk bi nekk si téléphone bi parce que loolu lañ bëgg ci débat du jour léegi fexe ba ñi koy seetaan ci bokk ñu déglu ko ci lu gaaw a gaaw ñu duggaat ci waxtaan bi allo. allo sëñ bi noo tudd ak foo may woowee. aywa ñu ngi lay déglu. waaw par rapport ak problème mu enseignement yi. Mhm. je pense que état bi depuis le début. Mhm. wane na une bonne volonté comme ni ko directeur de la fonction publique waxee. Mhm. te il faut que enseignants yi aussi xam ni. pour ñu am lép lépp lépp daar daar. waaw il faut que ñu def ay concessions comprendre que ni xale yi dañuy war a jàng parce que bientôt les examens tey foog naa. korom bi ñu def. day mhm. doyul pour pour pour dem ci ay examen ñoom loolu la ñu war a jël en compte. d'accord foog naa dafa am benn abus ci seen ay revendication quoi. Mhm. dafa am abus daal parce que li ñuy revendiquer dafa bari te dafa récurrent dañu war a tenir en compte intérêt xale yi ñoom seen intérêt ñu teg ko en deuxième mhm. ba pare y a un problème par rapport à la formation des enseignants xale yi léegi déggatuñ tubaab. aywa formation enseignant yi xëy na am waxtaane ko ci beneen wàll xam naa jant après di nga tontu ci li waa ji wax alors euh, DG euh, dafa mel ne bu dégloo kii wax li muy wax nii mooy am ngeen volonté mais wax nga tey ci suba ci journal Soleil que ni am na revendication yoo xam ne satisfaire ngeen ko mais am na yeneen revendication yoo xam ne ko teg en suspens parce que am na ay raisons yu tax est mën nañ xam yan point la ak lan moo ko waral. oui citation bu mu def ne ku ndoomin ray sa et cetera. waaw mooy mooy manque de confiance. am na ñuy wax. waaw ku la jox ndekki jox la añ su la diggee reer nga gëm ko. est-ce que joxe ngeen ndekki kañ. joxe nañu ndekki parce que projet mm-hmm. de loi bi voté nañ ko. Mm-hmm. procédure d'urgence. Mm-hmm. Hein, le 3 avril. le 13 avril. président bi mu ñu jógee voyage ñëw daf ko da da daf ko daf ko promulgué. waaw nest pas. léegi lan moo des. li des mooy signé décret bi. Hmm. mais décret boobu ñun ñoo nekkoon di préparer texte décret bi pour viser loi promulga donc mel na ni loolu c' est c' est ok. xaw leen a yeex. bon mm-hmm. yeneen poñ yi. Mm-hmm. Mm-hmm. aywa yeneen poñ yi boo jógee si validation. dégg nga nee bi incidence financière deux tiers d' ancienneté tey xam nga kooku ñu ngi ko xayma plus de vingt six milliards. am nga nguur gi mënoon na wax ne lii dafa bari mënuma ci dara. Ah. mais dafa ne. comme comme ni ko protocole d'accord bi waxee dem leen ci commission ad hoc yéen ak syndicat yi. Mhm. ngeen discuter naka la ko nguur gi di fayee. man d'accord naa ci. Mhm. man ko convoqué naa benn réunion bu njëkk ci loolu. Mhm. mais ñoom ci seen biir ñoo jubóowuloon ba réunion bi mënuloon. ñoom jàngalekat yi waaw ñoom mi ngi nii. donc loolu du benn problème. donc validation na ñëpp xam ne même à la base. c'est réglé dans dans moins de dix jours wala yu mel noonu. incha allah dinañu mën a déposer seen i dossier su waxee ne ñoom li ñu bëgg mooy li ngeen li ngeen def ne defar ngeen koo pare ba pare doog a xaar leen moo gën ñu toog di xaar rek ñu naan pare nañ lii te dara ñëwul oui mais mooy li ma la wax ni xam nga mm-hmm. xam nga validation mm-hmm. n'est-ce pas ay texte la d'accord n'est-ce pas mënuloo mënuloo dugal décret te te bi ñëwagul mm-hmm. donc ça wu vous dis que c'est réglé yeneen poñ yi yeneen poñ yi ma wax ne c'est réglé ñoom dañu ne la lenteur dans la délivrance des actes une fonction publique bari na fa acte ay actes yoo xam ne joxewuñu leen ko actes yoo xam ne ñu ngi impacté ci carrière enseignant yi mm-hmm. ñun on est d'accord qu'il y a des lenteurs ça du ñu liggéey ngi liggéey mm-hmm. mais enseignants yi dañoo bari bari waay boo xam ne mm-hmm. n'est-ce pas plus de 81 000 nga bëgg leen gérer pour cent fonction publique wala bu ko ëpp ci ñoom la voilà ci ñoom la léegi nag euh, ñun def nañu opération coup de pour wane suñu bonne volonté tey ji tey wax naa la ne amul benn acte bu des fonction publique liggéey nañu lu ëpp vingt sept mille actes actes yooyu defar nañ ko service financier yi def nañu guichet unique ma nga euh, actuellement ma nga bureau madame le ministre parce que moom kenn moo am moo euh, sañ-sañ signé ko amul amul amul délégation de signature mm-hmm. bu pare dañ ko war a tamit enregistré mm-hmm. bu loolu yëpp pare nag ñu door ko ñu door ko euh, def dans la base xam nga loolu dañ ko def pour faciliter n'est-ce ah, actuellement site mhm. fonction publique mhm. boo si duggee di nga gis def nañu fa trois g mhm. tous les premiers actes yu ñu enregistré ba pare. ñu ngi ci ñu ngi ci te man li ma jaaxal mooy ñoom. Mhm. boo leen déggoo ñuy wax ñu ne da dara nekkul ci site bi. mais yow sa bopp mhm. dugal ci site bi léegi nga seet. jot fa fekk acte yi dafa fekk ne rek 30 avril mooy échéance mais acte yi ñu ngi ñëw. d' accord jante dafa mel ne euh, buy déglu nit ñi. Mhm. dafa mel ne code de popularité wu enseignants yi dafa commencé di wàññeeku ci seen ci seen grève bi la xëy na loolu di nga si li ñu woowee indemnité. le euh, mu lu bari. gouvernement bi ci suba que euh, situation boobu soxla ñu revoir système bi. Mhm. Hmm, parce que système indemnité ci Sénégal dafa poser problème te du ci yéen rek. Mhm. alors est-ce que loolu gouvernement bi joxe comme argument nekkul lu compréhensif quand waaw mais balaa may tontu ci loolu. Mhm. Euh, xam nga sànq euh, directeur général de la fonction publique mooy doon wax ci affaire acte yi. waaw sànq de man bi may jógee sama bureau du jéem naa ubbi surtout fonction publique jotuma ci. Uh-huh. te dafa fekk déjà mu am ku ma woo ne ma mu ngi booba léegi mu ngi essayé dugg ci site bi. mënu ci dugg mënu ciy dugg ma essayé. xaw ma ndax ci internet bi la xaw ma ci lan la. mosoon naa ci dugg nag. Mhm. waaye li ma ci fekk ci ay at. bu mhm. ma bu ma ko limee. Mhm. du mat cent. gën waaw te moom nee na déjà am na mille actes enseignants yi nga xam ne tegoon nañ ci seen tànk. ñu bloqué ko. léegi nag ñu def opération coup de ñu ne woon le premier octobre avril lay génn moom ji boppam mu def ci benn conférence de presse ñi yaakaar ne actes yi génn nañu hmm. nekk le 30 avril la actes yi war a génn xam loolu problème la beneen bi mooy nga may ma rek ma déglu waa ji ne ci téléphone après ma dellu si tegal foofu sa baaraam ñu hmm. mbokk mi foo ñuy woowee maa ngi woote fii ci Tefa Dia aywa yow la déglu waaw li ma bëggoon wax ci wàllu validation bi mooy hmm. problème bi du ndax signé nañ ko wala signé wuñ ko man depuis régime Abdoulaye Wade m'a ñu ne ma dañ koy valider. ministère de la fonction de la modernisation de l' foofu lañ ma waxee na. moi je dis que ça ce n' est réer na. dañ ma ne dossier bi réer na. loolu xam nga ne loolu sérieuxul donc problème bi du ndax ndax état ndax ndax signé nañu accord wala léegi dañu nax nit parce que gis nga buñ ko signé ba pare. Mhm. bu ñu demee ba ñu war a dem nag ñu dugg ci seen fonds yi. dossiers yi la ñu réer billahi wal kitab tey man damaa constitué ay dossier constitué waat dossier saa ñu ne la dossier euh, directeur général fonction publique dina ci indi. léegi ay ay tontu waaw waaw mmh. waaw ñu ñu. validation. Mmh. décisionnaire yi ñoom seen bos musul am problème. fonctionnaire yi ñoom la seen bos am problème. Mmh. léegi leneen li mooy moom nee na ku la jox reer ndekki. jox la añ bu la diggee waaw. mais ñoom jéego yu ñu def neenaa naa la novembre fekk na ñoom ñu pare seen liggéey moom ministre am kañ la ñu voté loi procédure pour te bi leen bi leen waxee ñu ne noonu fii séparation des pouvoirs la mënuñoo imposer assemblée nationale dara. il a fallu que nit ñi dem grève ñu doog a yóbbu euh, loi bi assemblée nationale assemblée nationale voté ko sans changer euh, kii benn virgule. ñu continuer grève bi président de la république promulgué loi bi léegi dañu war a

te bu ñu wax bu ñu déggee fii dara dañuy dem wax ko suñuy naataango ne leen xaar leen. Mm-hmm. bu yàggee bu yàggee voilà bu yàggee. Mm-hmm. discrédit lay indi. ba tax na man léegi bu ñu ma waxee ñu leen nee nañu. wax léegi nag bë bët sangam ma leen ko waxee. Mm-hmm. bët sangam ma leen ko waxee. da ngeen bu bu leen bu leen naan jante waxul ma lu am bee ko wax. voilà alors euh, wax na sànq waa ji woote Cité Fadia ne dossier am dafa réer. man loolu laa comprendre lan moo ko waral ak bu ñu bu ñu jugee ci loolu ñu wax ci indemnité yi aussi est-ce que le fait que ñu augmenter yenn indemnité yu yenn fonctionnaire parce que loolu déggoon nañ ko fi. te mhm. enseignants yi conseil euh, ñoom jotuñu ci. Mhm. créé aussi ay frustration bon par rapport ak question bon administration. Mhm. Euh, li ñuy administrer dafa bari. waaw ci ay nit kuy administrer lu moo quatre-vingt-un mille enseignants bu kenn ñëwee ne sama dossier de mais je pense que kooku su ñëwee danañ ko mën a reconstituer maa ñu. c'est humain li tubaab di wax mm-hmm. mais euh, seulement. Mm-hmm. Euh, il faut que Diante ak base bi comprendre ne quand on a 27000 actes yu pare 31 mars. Mm-hmm. mënuñu signer ko enregistrer ko le 1er avril. parce que aussi signature bi. du question ne ministre day gëmm rek di signer mais acte fonction publique dafa am conséquence financière. ñun suñu bureau des visa daf koy contrôler finance contrôlé ko budget contrôlé ko contrôle financier contrôlé ko mhm. bu ñëwee ci man avant ma def sama bon à signer damay xool pièces yi parce que sama responsable la engagé ministre balaa muy signer wala secrétaire général day vérifier mhm. mais du ko jox ministre comme ça rek mu signé mhm. donc un mois lañ leen laaj ci loolu mhm. mais je vous di d'ici la fin du mois dinañu gis presque euh, acte yëpp a ci site bi léegi ñi ñu yokkal ñii enseignants yi jotuñu ñeneen jotuñu yi est-ce que yéen si bopp créé wu leen frustration yi non ñun créé ñu benn benn frustration parce que ñun on traite les dossiers comme ils viennent xam nga ñoom sax am na facilité bu ñu leen defal parce que dossiers yi bu fekkoon ne dañu doon xaar rek ñu jaar IDEN IA mhm. dem ministère ba ñëw ci ñun kon lenteur yi dina gën a bari mhm. mais ñoom dañu leen di may en tant que permanence syndicale ñu dem ci base bi photocopier bordeaux ñooy ñu traité ko loolu sax daf ñuy indil ay doublon mhm. ci ci cadre facilité yi lañ lañ ko dugal mais am na lenn aussi loo xam ne bëgg naa ko ci yokk parce que du lenteur yi poñ yi bari na am na loo xam ne moom la ñu tuddee la ci biir lenteur yi mise en solde ak paiement des rappels waaw paiement des rappels. loolu ngeen ne fay ngeen ci lu mat cinq virgule. ministre des budgets quatre milliards. waaw le mieux placé. Mhm. nee na ci rappel yi parce que mhm. presque coup de la. fay na ci déjà cinq virgule quatre milliards ci diir bu gàtt. Mhm. mu des un virgule six milliards. mu joxe échéance ne le le vingt neuf mai bi dina ko euh, tàmbali. au plus tard le 31 juillet. mu jeex dina fay lépp. nga jël dëkkuwaay yi. habitat ZAC de Kounoune. moo posé woon problème parce que euh, nit ñi jox nañ leen ay terrain foofu. Mhm. mais immatriculé wuñu ZAC bi. Mhm. ba tax na ñoom mënuñu am seen i bail mais ZAC bi maintenant c'est immatriculé am na numéro titre foncier ba depuis longtemps nee nañ leen. léegi soo demee Rufisque. Mhm. di nga signé sa bail. ZAC yi ñu leen may ci région yi tamit. ministre des finances débloqué na huit cent. Euh, millions pour aménagement bi. donc boo seetee poñ yëpp. gouvernement bi indi li ay tontu ba mu des indemnité yi. li des ci dafa dafa bareetul il faut ñu jéem gaaw tuuti. alors bu fekkee ne euh, mu ñu wax euh, mise en solde. Hmm. Euh, paiement de rappel d' intégration yi demee na mu ne gouvernement bi def na ci cinq virgule 4. li ci des mooy 1,6 milliard mu wax ne ay dates yu leer que ni 30 29 mai bee ñu jëm ci lay commencé balay 31 juillet mu jeex jant est ce que le bu def loolu mënuñu wax nag ne ma nga ca yoon wa. rappel yi de li ma ci xam. Hmm. moom mooy que. ñoo xam ne jotoon nañu seen premier salaire fonctionnaire juin 2012 ñoom lañu jote fay seen rappel ñu ci des yëpp kenn fayu gu leen rappel. ah oui déedéet ñu ci des yëpp depuis juin 2012 jàngalekat yaa may dégg. depuis juin 2012 ñu jotoon seen premier salaire fonctionnaire ñoom la ñu fay mais ñu des yëpp kenn fayu gu leen te ci diggante man bi ma amee information bi ak réunion boobu. Mhm. Euh, fin du mois jaaru fa. man nag loolu moo ma jaaxal leneen li xam nga euh, acte yi muy wax nii acte bu waroon génn 2012. boo ko génneewul bu naree génn 2013 dootu ko dootul nekkati budget 2012 mais day dañ koy comptabiliser ci budget bu at yi bëri bi 27000. budget 2015 mënu koo. mënu koo fay mënu koo supporter. parce que ñoo xam ne depuis 2012 lañu acte yi waroon génne nga bëgg koo génnee 2015 pour ñu fay ko. 2015 li ngay ragal mooy moom accumulation. voilà parce que lenteur administrative. fayoo ko 2013. Hmm. fayoo ko 2014 boo ko naa def fay day métti. fekk fa lu lu budget boo war a fay tamit loolu la. Hmm. léegi. bu muy wax nii. Hmm. ba léegi amul courant ndox waaw ko courant ndox ci ci ñoo xam ne ñoo ngi dëkk foofu depuis 2003. courant ak ndox amu fa titres yi ñuy wax. ñu jotoon a dem service des domaines de Rufisque. nee nañ fekk ñu fa titre xëy na peut-être tey tey ma information bi. bi ci des moom mooy indemnité yi ñun lu ñu wax mooy yemale. boo nekkee jaboot. nga am say liggéeykat. nga ne na ñëpp xaar étude bi parce que li ñu ma lu ma fekk. Euh, jaaduwul il faut ñu xoolaat système bi parce que ñu ko niñ ko defoon yi caxat caxatee ko baaxul il faut ñu xool ko ba mu jub. ci diggante bi nga war a dem élection locale am ñoo xam ne ñoom ñooy joxe résultat yi. Hmm. suufu table bi nga jox leen ay ndàmpaay yu duun. ne ñenn ñi yéen noppi leen bu leen xool ci nii li ñu am hmm. day indi problème loolu mooy naqari waaw loolu mooy indi frustration comme ñëpp dañu war dañu waroon xaar étude yi hmm. nañu xaar étude bi bu étude bi génnee lu mu wax rek hmm. ñëpp d'accord euh, ci mais bu dee am na ñoo xam ne dañ leen ci seppi jox leen loo xam ne ñii amuñu ko day indi féewale suñu biir la de la fonction publique xëy na waxtu wi tënk nañu trop pour jéem a jeexal rek ci contexte bi ñu nekk nii ñu bari ci ci parents d'élèves bi ñuy seetaan euh, seen coono mooy ndax année bi dina wéy ci niñ ko bëggee ñeen sax ne bu ñu defoon daal dina am année blanche ci contexte boobu ñu ne gouvernement Sénégal nee na enseignants yi ku ci jàngalegul dina dagg sa salaire est-ce que nekku leen di yokk tension yokkuñu tension là il faut que ça soit clair aywa loi fonction publique amul jàngalekat amul keneen dafa ne mhm. ku liggéeyul duñ la fay parce que loolu c'est normal ku liggéeyul duñ la fay donc man je trouve même pas normal liggéeyuloo di réclamer salaire ku liggéeyul doo doo fayeeku c'est ça la loi de la fonction publique amul jàngalekat amul leneen euh, syndicats yi ñoom xam nañ ko seen check-off yooyu ñuy def seen cotisation yi c'est pour fonctionnement syndicat bi uh-huh. mais aussi pour boo sumbee grève bu metti ak sa employeur muy état mbaa muy muy muy patron privé pour que nga mën a am loo loo loo voilà di fay <laughs> mais état bi du daaw ko <laughs> mën na ko appliquer mën na ko appliquer mhm. mën na ko appliquer fii rek ngay gis euh, nit euh, du liggéey di di fay ko salaire mais yi mhm. li ma si bëgg a wax mooy indemnité yi ñoom dañu gis ne saafara ñu validation saafara habitat mhm. saafara yu bëri ñu glissé ci indemnité indemnité yi pour ñoom question nouvelle la ñoom xam nañ ko parce que ñoom indemnité kii dafa ne augmentation généralisée mhm. ndooy ne alignement ay question nouvelle la c'est-à-dire question nouvelle ci technique négociation mënoo mhm. ko évoquer tant que gouvernement bi toogul xool ko ñu nag dañu ne loolu question nouvelle yooyu balaa ñu koy xool étude bi pare donc waruñu ñu jeexal rapidement wax dëgg yàlla ah, ah. seen salaire yi ñuy dagg année scolaire bi ñu bari commencé indi tiit lan la jàngalekat yi mën a wax tey pour rassurer élèves yi ak seeni i parents waaw dama bëgg rappeler simplement ne indemnité mhm. mooy ñaxtu boo xam ne moo gën a yàgg ci éducation bu ci des moom mooy euh, xam nga euh, li jëm ci euh, coupure salaire di diversion la loolu ay diversion la mhm. mais mun naa ko tuddee aussi jaay doole munoo ma yoreel xaalis man ma jóg di fexe pour nga fay ma nga ne ma léegi boo liggéeyul damay dagg sa salaire mënoo ma yoreel ay rappel yoreel ma samay euh, acte yoo xam ne dina ma indil amélioration ci sama salaire lu eh, ñu signé protocole d'accord nga ne di nga ko jëmmal jëmmaloo ko ma toog bi at passé ma jóg di ko ñaxtu nga ne léegi bu ma demee grève da ngay dagg loolu du ñu arrêté parce que xam nga euh, en réalité opportunité li tubaab tuddee opportunité hmm. bëri na ay jàngalekat yi nga xam ne seet nañ comme li nga wax ne année bi lu ñu ci teg rek mu yàqu commencé woon nañ bëgg a teggi seen tànk mais bu ñu ne léegi dañuy dagg salaire gars yi ne fu ne nii bu ñu teggee suñu tànk rek day naan dañoo tudd salaire moo tax gars yi arrêté léegi nag nañ dem année bi yàqu génn guñ ci ba léegi oh non c'est-à-dire léegi pour sauver année bi ñun amuñu problème ci wàllu woowu mais bu ñu nekkee fii dinaa ndax année bi dina normal wala du normal nañ xool rek ci yàlla kan mooy responsable situation ci fàttali yow yaa jiite grand cadre yi nga xam ne ay syndicat wu jàngalekat yooyu yu nekk yu bëri ñoo ca nekk nekkoon tey suñu gan ak euh, Nuhu Diallo moom mooy directeur général fonction publique amoon mbégte loolu wax dëgg yàlla di leen dajal ci plateau débat du jour mbokk yi mbégte mu ñuy toll la ñu amal di leen ko présenté ñu joxante dig daje suba ak jàmm incha allah ci beneen débat